24. incha allah maa ngi sa koor. su ma ko jógee dinaa am temps bu pare. Uh-huh. dinaa def ko émission. bien. Euh, comme ça dama bu date bi le trois bi passé. Uh-huh. bu ma def sama date yi nga xamante ay contrat jàmm la tëjee. Uh-huh. bu weesu soir bi daal damay off. off. jëm fan. damay ah ba sama bëgg-bëgg ci nga nekk. damay off euh, dafa am li ma leen bëgg il faut mu jox ko temps tuuti mais loolu dëkk wax bi damay off. waxoon naa la ko fi. waaw bu ma ma ay dem njaboot gi ne sama ginnaaw bi ñu defee le 3 septembre bi. Mhm. lu wees sa tournée jàmbur ak soirée de dara loolu dëgg moo ko joué. loolu naa la. damay off. loolu na. septembre ba décembre da ngay am sant. dinaa wax deux mois trois mois incha allah. loo loo loolu naa la. di nga ko xam. seet loolu foog ñu ànd foog foog ñu càmbar